bonjour d'abord euh, dama amoon euh, euh, benn laaj ci français mais bon comme ah, vas voilà en fait il y a y a des connexions qui se créent entre joueurs sénégalais en club je veux citer l'exemple de Ismaïla Sarr et Iliman à, à Marseille il y a aussi la connexion monégasque avec Jacob et, et Crépin Euh, que vous inspire un peu connexion yooyu noonu ci ci ay joueurs yoo xam ne da nga leen di am en club ñu ñuy travailler ensemble ba pare ñu ñëw euh, équipe nationale je sais pas ndax noonu laa ko mën a waxee euh, est-ce que yow da ngay inspiré wu un ci ñoom liggéey bi ñuy def en club pour mu gën a mu gën a baax en sélection waaw mais loolu lu lu lu lu lu am solo la tamit te parce que te bu ñu xoolee position Jacob Euh, bon, ça n'a pas changé. Hein. <laughs> Arrière gauche, les jouets Monaco. Arrière gauche, les jouets équipe nationale pour Sénégal Tamit. Euh, Crépin Diata, les Tamit. Arrière droit, les jouets, euh, comment dirais-je encore, euh, Monaco. Mais depuis quelques temps, Tamit. Nous avons euh, équipe nationale euh, arrière, arrière droit. Je pense que l'OL Tamit, l'OL am solo là, parce que a fait gagner deux Mais je crois que le gagner am solo, que surtout, ils ont du temps de jeu. voilà ils ont du temps de jeu tam ci ci ci ci poste boobu tey boo demee Marseille tey nga gis Iliman euh, boo xam ne mën na jouer euh, attaquant euh, Ismaïla Sarr mën na jouer excentré loolu yëpp c'est c'est très très très important même bu dee sax philosophie bokkuñu man sama sama sama philosophie dafa difi dafa wuteeg bu bu bu bu entraîneur entraîneur Monaco man li may laajte Crépin ak Jacob peut-être que entraîneur bi leneen la leen di laajte. peut-être man li may laajte Ismaïla Sarr ak euh, ak Elimane Ndiaye xëy na Gattuso leneen la leen di laajte mais en réalité boo xoolee boo xool y' a pas y' a pas de mouvement Crépin arrière droit lay joué ci flanc bi la nekk Jacob arrière gauche la lay joué ci flanc bi la nekk Ismaïla Sarr excentré droit lay joué donc pour man euh, lu gën a am importance rek mooy que justement ñoom ñu mën a adapté wu ci post boo xam ne post boobu la ñuy joué et puis ñu def seen kattan pour que justement euh, li ñuy xaar ci ñoom ñu mën ko réaliser. merci ñu ñu ñu continuer rek si yeneen laaj yoo xam ne defoon nañ ko ci nasaraan dañ leen di tënk rek ci ci wolof laaj bu njëkk bi eh, mu woon ci mbiru euh, préparation équipe euh, nationale bi euh, maanaam match yi nga xam ne kan bi match yi nga xam ne ay 14 heures lañ leen programme est-ce que loolu du indi gàllankoor ci équipe bi si si dinañ di gàllankoor bu mag euh, Kara parce que ñëpp xam nañ ni méde benn médecin du la wax ni que euh, jouer 14 heures loo xam ne la lu lu lu baax la ci wérgu yaramu euh, joueurs yi je pense que lu gën a am importance quand même mooy que nañuy protéger joueurs yi parce que tamit spectacle bi joueurs yi ñoom ñoo koy ñoom ñoo ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy réaliser bi ñu demee Cameroun pratiquement suñu ñaari match yi yëpp 14 heures nañ ko jouer et en altitude tey c'est la même chose du man kese may wax ci yooyu du man kese may may may <laughs> may dénoncer loolu tey entraîneurs yëpp d'accord ñu sur le fait que match CAN yi ñu koy jouer à 14 heures ñëpp xam nañ ni fépp ci Afrique de l'est à l'ouest de nord au sud ñëpp xam nañ ni que 14 heures mu nekk Alger nga nekk Cap Town nga nekk Bamako wala nga nekk Éthiopie ñëpp xam nañ ni que c'est des périodes yoo xam ne périodes yooyu dafay tàng donc. tey spectacle boobu tamit bu ñu ko bëggee bu ñu ko bëggee réaliser te nga xam ne ñëpp d'accord nañ ni que CAN bi mooy troisième compétition bu gën a importance ci àdduna je pense que dañuy mettre acteurs yi tamit ci condition yoo xam ne war nañ mën a def seen liggéey comme ni ñu ko waree. mën naa wax ni que d'accord ñu si match 14 heures yi j'espère que vraiment suñu suñu hiérarchie yi suñu dirigeants yi dinañ ci dinañ ci dinañ ci taxaw bu baax xool xoolaat encore programmation match yi. toujours ci mbiru CAN bi di ñëw bi euh, fa euh, ñaar fukk. Euh, euh, footballeur ak ñett ñooy nekk ci liste yi est-ce que loolu euh, yaakaar nga ne lu baax la. non mën nañ ko améliorer comme nu ma ko waxee sànq parce que ku nekk d'accord na ni que CAN bi boo xoolee boo xool chaque événement CAN dañuy sentir ni que CAN bi mi ngi gën a développé wu CAN bi mi ngi gën dem ci ci kanam. tey bu ñu xoolee pratiquement équipe yan ñoo nekk ci éliminatoire coupe d'Afrique wala coupe du monde yëpp amul benn équipe boo xam ne depuis janvier ba tey dem na ak 23 jours. ñoom ñëpp 24 cinq 25 joueurs 26 joueurs am na ñoo xam ne sax dem nañu ak 30 joueurs tey bu ñu xoolee difficulté boo xam ne kan bi match yi métti na suspension yi tàngoor bi baisse de régime yi je pense que tey ñu waroon dem à 27 joueurs wala ñu dem à 26 joueurs du yàq dara ci spectacle bi. je pense que loolu tamit waa CAF euh, ñu dirigeants yi war nañ war nañ war nañu woote c'est-à-dire que woo ñu ñun entraîneurs yi nga xam ne ñun ñooy ndeyu bi lii ñun ñoo nekk foofu ñu ñooy ñu ñooy rencontrer ay difficultés ñu laaj ñu tamit suñu avis si programmation match yooyu et surtout si développement football euh, football africain bi tamit. mais comme nu ma ko waxee sànq ci kàllaama nasaraan rek sama en tant que entraîneur yi ñu ngi ciy wax te incha allah ñun tamit dañ taxaw jéem a jéem a jéem a défendre tamit suñuy droit tamit ci loolu. Mm-hmm. beneen laaj bi ci Youssouf sabali la jublu euh, ndem xarañ na lool waaye dafay bëri ay lu muy gaañu est-ce que di ngay waxtaan ak moom yan. Euh, ci waxtaan bi di ngay di koy xelal di ngeen discuter souvent. waaw damay discuter ak euh, Youssouf bon blessure moom mën naa wax ni que ci ci ci football la bokk ci ci sport la bokk. mais Youssouf nag dafa nekk euh, xale boo xam ne xëy na fragilité boobu moo ko téye ci lu bëri donc ñun entraîneurs yi tamit muy man muy entraîneur am bu nekk fële bitim réew je crois que lu gën importance rek mu jëm ñu jëm ko manager peut-être que xëy na ci semaine bi am na entraînement yu bëri yoo xam ne du ko mën a def. donc euh, ñu jëm ko programmer pour que justement muy jouer match yi que ñuy wàññi entraînement pour que justement blessure yi may am nii mu war a mu war a wàññeeku mais am naa yaakaar ni que ci kan bi incha allah dinañ ko mën a récupérer. am naa si yaakaar bu baax a baax. beneen laaj bi si attaquant yi euh, dañoo seetlu ne du ñuy dugal maanaam efficacité bi des na tuuti est-ce que loolu tiitalu la balaa ñu dem ci kan bi. football lu ci gën a métti mooy mooy dugal but. je crois que euh, défendre moom ñëpp ñëpp mën nañ ko waaye dugal but mooy mooy loo xam ne lu lu métti la ci ci football. mais bu ñu xoolee boo xool euh, ñun suñu équipe nationale bi pratiquement amuñu benn buteur attitré mën naa wax ni que ñëppay dugal te loolu tamit avantage la si si ñun. mais jou attaquant buy dugal c'est attaquant boo xam ne boo am confiance tamit je crois que tey suñu rôle mooy que ñu jàppale xale yi jàppale suñu suñu attaquant yi ko que confiance bi nga xam ne amoon nañ ko. ba nga xam ne ñu ngi doon marqué ay dizaine de buts ay quinzaine de buts je pense à Boulaye je pense à Jackson je pense à Habib je pense à Sadio bien sûr à tous ces attaquants qui sont là-bas qui ont déjà yoo xam ne dugal nañu ay buts yu bëri mais ñu def en sorte que justement confiance boobu mën a dellu si le plus rapidement possible. Euh, benn laaj bi ci suñu match bi la ñun ak euh, Soudan du Sud nga xam ne fii lañ koy footballé ci stade euh, maître Abdoulaye Wade mais dafay nekk à huis clos. nga xam ne euh, FIFA daf ñu daan léegi huis clos boobu naka nga koy dundee yow en tant que coach. ñu ngi siy naqarulu bu bu baax du loo xam ne neex nañu parce que bu doon suñu sago tey ñu recevoir suñu suñu réew suñu dëkk parce que tamit booy jouer sa réew sa yaakaar moo que sa supporter yëpp nekk sa nekk nekk sa ginnaaw. je pense que tey bu dee yaru ak teggin euh, kenn ëppalewu ko Sénégalais. foog naa wane dañ ko fépp fu ñu xam ne Sénégal am na fa compétition muy coupe du monde 2018 bii nga xam ne mën naa wax ni que ñu ñoo gagné woon sax pratiquement meilleur fair play si suñu supporters yi. coupe d'Afrique bi tamit ñëpp gis nañu suñu taxawaay foofu kenn bu suñu jiiñ dara dañu mës a nekk supporters yoo xam ne mi supporters yu correct nañu. tey su incident boo xam ne moo am ci contre contre Égypte ñu suspendre ñu mën naa wax ni que loo xam ne la du lu normal d'accord ñu si parce que ñun lan lañ bëgg mooy que suñu supporters yi nekk fii. waaw parce que tamit defuñu fi loo xam ne yeneen supporters yi defuñu ko. parce que tamit bu ñu fàttee ni que lu xew euh, ci match boobu contre contre Égypte dafa am lu fa xewoon avant boobu voilà. cautionné wu ma loolu nag mais nag je pense que suspension bi moom loo xam ne lu rëy tamit par rapport a conséquences yoo xam ne ñoo amoon fu lay tàmbali ci match bi parce que gisuma benn joueur muy ñun si suñu côté muy seen côté boo xam ne il était en danger donc je vois pas pourquoi ñu ñuy suspendre ci ci match boobu. Euh, beneen laaj ci. ñi nga suñu adversaires yi maanaam Sud Soudan ak euh, Togo lan nga mën a wax ci ñaari adversaires yooyu également euh, ñaari match yi est-ce que da nga yaakaar ne euh, danga nga koy football pour éliminatoire mondial bi rek wala da da nga koy football également pour préparer kan bi di ñëw ñaar ñaar yëpp la parce que tey effectivement ñaari match yi mën nañu ci ci ci période bu mu bu mu bu mën nañu xalaat ni que mën nañu servir euh, pour euh, pour CAN bi mais en réalité compétition à part la bi compétition coupe du monde la te ñëpp xam nañu importance su coupe du monde pour euh, pour pour Sénégal. te compétition bépp boo xam ne bëgg nga ci dugg bëgg nga sa ñaari match yu ko xam ne ñu moom nga war a commencé yàlla may la si ndam ñu ngi ñaan yàlla vraiment yàlla may ñu ma ndam ci Soudan da nga xam ne match bu bu compliqué lay doon parce que suñu supporters yi newuñu fi te xam naa tamit Soudan duñ fi ñëw tamit pour pour perdre dinañ ñëw tamit pour défendre ñoom tamit Euh, seen qualification Togo xam nañ ko Togo moom mun naa wax ni que 2006 moo doon équipe boo xam ne dañu éliminer dañu éliminer pardon dina doon match boo xam ne match bu métti la mais am naa yaakaar ni que comme match yu importance yëpp suñ ko préparé vraiment comme nan lañ ko war a préparé yàlla dinañ ci mën a ndam incha allah. Euh, beneen laaj bi ci mbirum Abdallah Ndour nga xam ne yaa ngi ko doon woo jamono yële waaye fu mu ne nii dafa euh, gaañu dafa am tolof tolof est-ce que yaakaar nga ne. mun na ñëwaat si yeneen euh, yeneen yeneen match yi waaw am naa si am na si yaakaar mais je crois que lu gën a am solo pour moom Abdallah mooy que mu yàlla may ko wér parce que wér ci li lépp ci li lépp xeej mu nekk xale boo xam ne xam naa ko pratiquement depuis de dix ans ay qualité tamit xam naa ko malgré que poste bu muy joué tamit am na concurrence bu rëy parce que Abdou Diallo mën na fa joué Ballo Touré mën na fa joué Jacob tamit mën na fa joué donc euh, di ko ñaanal yàlla rek yàlla a dellu ci jàmm ak waaw euh, beneen laaj si Henri Saivet ne lan moo tax woowuloo ko euh, ndem mu ngi góorgóorlu bu baax ci ci équipe am waaw maa ngi koy maa ngi koy féliciter bu baax Henri parce que yàgg naa ko <laughs> yàgg naa ko suivre je pense que man maa ko je fais partie aussi des gens qui am amené en équipe nationale ak Alain mu nekk xale boo xam ne xale boo xarañ la ci ci ci ci li muy def malgré que à un moment donné tamit amoon na ay tolof tolof mu gaañu woon écarté wu ci ci ci ci ci game bi mën naa wax ne que ci période yooyu tamit am na ay xale yoo xam ne wane nañ seen bopp tey loolu laa doon tontu sànq ci kalama nasaraan boo amee Cheikhou Kouyaté Gana géey nga am pap Gueye nga am <laughs> Nampalys Mendy nga am euh, Lamine Camara John Lopy Pathé Ciss mën naa wax ni que poste milieu bi déjà concurrence bi bëri na fa trop te nag équipe du milieu rek mënuñu jël seulement que ay milieu mais yëg naa li muy def te xam naa li muy def tamit. laaj bi mujj moo ne woon rek nga lan nga ñu mën a wax ci préparation CAN euh, bii di ñëw fan ngeen koy amalee lan nga ci mën a nga ñu ci wax. en tout cas lu lu mooy que dinañu dellu si fii Sénégal même bu dee sax def nañ préparation fële bitim réew dañ dellu si waat ci Sénégal pour justement drapeau bi nga xam ne chef de l'État war nañu ko jox ñu ñëw récupérer ko fii. mais en réalité ak directeur technique bi président Augustin Senghor ak sama staff bi yëpp ñu ngi ciy waxtaan. pour xool justement dëkk bu yoo xam ne war nañ fa mën a dem parce que préparation bi lu am solo la lu am importance la. jërëjëf coach jërë ngeen jëf yéen ñi ñëpp teewee eh, eh, maanaam. wa waaw début regroupement bi wax nañ ko début début regroupe. alo pour ce demain le 13. le voilà donc je vous donne le programme. le 13 mhm. c'est ouvert. le 14 c'est fermé. le matin et l'après-midi. le 16. le 15 c'est fermé ok. Le, le 16, Le 17, c'est ouvert et on joue le le programme maintenant. Merci beaucoup. <laughs> Euh,